bi 14 di jot jàpp 15h le président Idrissa Seck daal di dugg si ci dëkk bu sell bi di Touba wootam bu ñuul bu mag bi daal di gaare ci buntu résidence Xaadimu Rasuul lu ñu baaxawul gis ci moom mu daan ànd ak cortège bu takkoo takku bëri loolu mbooloo tey jii benn daamar dong la gaare fii ànd ak ñaari garde du corps ak kenn koo xam ne nii moo ànd ak moom ci daal di dugg ci biir résidence Khadim Rasoul ñu daal di ko dalal ca appartement Serigne Modou Badar Diop mu daal di ca biir salle ba toog fal toll fanweeri simili ginnaaw bi ci la daal di génn nag daal di dugal ci fi nga xam ne moom moo di bâtiment bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général di murid daal di nekk mu dugg ci biir bi ñu ko toppee nag ba ci bunt bu mujj bi ñu daal di yam mooy conseil mooy conseil mooy conseil sëriñ baax na ginnaaw bi nag ci ay xibaar jot nañu ne saal bu njëkk bi da koo bàyyi daal di dugg ba ca biir néegu sëñ bi daal di fay tëju ak sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke bi ñu toogee ci biti di chronomètre toll ci benn waxtu la sa Seck def ci biir bâtiment sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke teel daal di génn ànd ak waa kër sëriñ bi ñu gunge ko ba ci buntu résidence Xaadim Rasul mu daal di duggaat ci wataam ànd ak ay garde du corps am ñuy fësal ni ma nga jëm kër sëriñ Moussa Nawel bu 18h jotee daal di ñëw daal di teewee fulku bi nga xam ne nii moom mooy am ci biir résidence Xaadim Rasul ci kanamu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke ana gars yi ñeme fa